jógee fu ay birab yu yu sorante mënuñu jekk daje ci benn déer waaye dara tardé wul kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax fa tabarakallahu di leen gërëm itam di la gërëm surtout yow gouverneur ci yitte ji nga jox liggéey bi ak pasteef bi nga ci am nga xam ne fu ñu toll danga nga fa daal di ñun ndax barki démb rek bi ma lay woo fekk na boobu jotagu benn leetar bu ci aju te da nga ne rek kon nañ ko def alxames ji ñu jàpp ko muy bésu tey bi loolu ñu ngi la ciy gërëm ci taxawaay yooyu di ci gërëm chef de service yi fi ne ci gërëm itam préfet département Mbacké ci seen taxawaay di gërëm maire bi ñoom itam ci seen taxawaay yëpp ñu ngi leen ci gërëm di leen sant bu baax di leen xamal ne bis bi bisu sëriñ Massamba la sëriñ ma Massamba nag ki ko fi nekkal mooy sëñ Mamour Anta Sali Mbacké da xalifa sëriñ Massamba doon ku am yitte ci dëkk ba am ku am yitte ci mbiru Seex Massamba am yitte ci bis bi waaye am yitte ci dëkk ba itam fa tabaarakallaahu kon mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant yéen ñëpp te leen delloo njukkal ci seen taxawaay yu rafet yoo xam ne yéen a ngi koy taxaw ci liggéey bi dëkk ba nag di Daaru Karim dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne moom la am loolu wax nañ ko fi bu dul benn du ñaar mooy décret boo xam ne 1923 1923 la sëriñ bi joxe woon ndigal ci ñu sanc ko sanc nañ ko tam ba mu mel na nga xam ne na la waroon a mel waaye nag dégam Seex Masàmba moom yàlla dafa dogal taxawaayam ak doxinam ci sëriñ bi mënu koo sore benn yoon waxtu wu nekk day bëgg mu nekk fi wetam ndax lim koy liggéeyloo moo ko gën a loolu moo tax dëkk bi ñu dem ba léegi mu mel ni ab sancaat la te fekk na du sancaat bu yàgg la wala taxawoon ah, sëñ Massamba nag doxinam ak digganteem ak sëriñ tuubaa kenn ku ne xam na ko ndax yàlla dafa dogal mu sarse woon ko liggéey boo xam ne mooy bi ko gën a yitteel ci àdduna muy liggéeyu xasiida yi moo ko gën a yitteel muy def lu jóge ci moom balaa jàll ci loxo taalibe yi dana jaar ci Seex Massamba mu defaat ko bindaat ko def ko ay gaal ba kenn ku nekk mën koo jàng ñu mën koo liir loolu moo doon liggéeyam bi nga xam ne moom lay def dañuy wax naa lu mu bind moo ko maas waaye noonu lay demee maas am na solo lool sax ci ci ci ci mbind waaye nag li ëpp solo mooy xam li nga xam ne moo ko mën ki koy jàng mën a xam li muy jàng lu mu doon loolu mooy li ci ëpp solo loolu nag la Seex Masàmba daa def moo tax bëggutoon moom mu sori ko dafa bëggoon waxtu wu nekk muy nekk fi peggam lu mu liggéey ba noppi jox ko ko lañ ca war a def ñu def ko ndax wax nañu ne dafa wax ne xasida yi day man tànn moom ma sàmba jox leen ko xasida yi seen bopp ñoo tànn sëñ ma sàmba liggéey leen ndax xam gu mu xam ni ma ni ma fi ma toll ak yitte ji ma ci am ak yëg gi ma ci am loolu moo tax ma jox ko ko ba ñëpp nanguloon nañ ko ko bu wér a wér fa tabaarakallaahu loolu nag moo tax Daaru Karim ajo ab taxawaay ak seetlu bu baax bu ñuy war a dellu gannaaw seetlu ko xëy na dañ ko fay wax ay màggal muy am ay soppiku waaye am yuy des ba tey ndax li nga xam ne moo aju ci wàllu lotissement bi amoon na fa ba yaatu woon na lool waaye nag lay kura dem fa ni bareewul noonu courant bi jaar ci dëkk bi ñëw ci pénc mi dem ci kër yi jege loolu moom am na waaye nag am na yaakaar bi nga xamee ne central bu mag bi ñu def fale ci ci ci ci ci yoonu ci yoonu euh, Linguère mu nekk ci gannaaw dëkku sëñ mustapa Nibo ji central boobu dana am benn ligne bu fa jógee boo xam ne day ñëw jaar si foofu mooy jaar ci biir Daaru Karim bëggoon nañ mu jaar ci cinquante bi sax ñëw waaye cinquante bi am tuuti problème ñu di ko jaarale ci wet gi féete euh, gànnaar nga xam ne day romb foofu ba ñëw wër ba ci gannaaw kër gi mu wër ko moom doo ko delluwaat jàll ba àgg ci fi nga xam ne mooy mooy mooy mooy jot cinquante boobu mën a continuer boobu liggéey loolu nag am nañ ci yaakaar ne bu fekkente ne wàllu courant dañ ciy am jafe-jafe bu centrale boobu taxawee ba ñu def liñ ci war a def danañu am post yu ko mën a distribuer mu boo xam ne dana tax dootu am jafe-jafey courant loolu ñu ngi ci interpellé ñi nga xam ne mooy Sénélec fan lañ ci toll ak nuñ ko nuñ ko nu muy demee bu boobaa ndax post ba fa nekk dafa néew doole barki démb rek bi ñuy def ñëw préparation màggal gi euh, coupé na lu yàgg loo xam ne amuñu courant. courant bi kon manqué na fa bu baax mat naa dolli ci poto mat naa dolli ci poste bu ko mën a servir mat naa dolli itam ba nga xam ne liñ ci soxla lépp danañ ko mën a jëfandikoo beneen ba mooy wàllu ndox ndox mi moom itam bi ñu sancee daar bi sancaatee daaru Karim rek lañ bagas forage bu rëy forage bu mag boo xam ne dafa doon servir daaru Karim ci boppam waaye di serviraale Touba li tàmbalee ci aliya ak euh, aslem ba mooy àgg ci bërëb yi jege foofu yëpp daf leen doon renforcer ci ndox ci wàllu màggal gi loolu am na solo lool waaye nag ba tey des na ndax la ca des mooy dañoo gas forage ba ba pare te amul sétadoo sétadoo nag mooy mën a yóbbu ndox fu sori ñu ñu programme fa nag léegi benn bassin boo xam ne bu mag lay doon xaw ma ñaata mètre kib la waaye mat na buñ ki ki fa nekkoonal daf ne ma forage seetadoo boo xam ne dana mat dana mat euh, cent mètre kib wala cent vingt cinq kib buñ ca de seetadoo bi bassin boobu dana mën a boole lu mat juróom ñaar juróom-ñetti forage juróom-ñetti seetadoo yu mel noonu tool noonu kon bu rëy la natt nañ ko itam ci biir fi ñu koy defee ba noppi waaye nag doxalaguñ ca dara te foofa di manqué ndox bu baax waxtu wu nekk dañuy soxla ndox te duñ ko mën a am ñu bëgg loolu fuñ ci toll moom it ñu wax effort mu wax nu fan lañ ci toll ñoom ci liggéey boobu ak nan lañ koy defee ak niñ ko bëggee ndax dana dëppoo ak niñ ko mën a defee wala déet loolu moom it beneen yittee la boo xam ne bii aajo nañu leeral leen ko bu baax a baax beneen bi ci des mooy wàllu sonaateel xëy na ñëwuñu waaye ñun ñëpp soxla nañu ko Sonatel dafa mel ci misaal ne mën a am réseau mën a téléphoné rek baax na waaye mën a amee connexion boo xam ne bii dana tax fu fi nit nekk la nga liggéey mën a jàll ci fa mu war a jàll ci jàppandi loolu moom it soxla nañ ko waxtu wu nekk gis nañu nag ay antenne yu ñu fi def yoo dend ak hôpital bi xëy na yooyu buñ ko doolee lay def ci la ca war lépp itam dana tax ñu am internet bi ñu soxla dana tax ñu am réseau bi ñu soxla loolu moom it ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax tabarakallah beneen bi ci des mooy nuy sant maire moom it ci taxawaayam ndax maire bi moom am na taxawaay bu rëy bu muy taxaw ci bis boobu te yàgg na koo taxaw te mosu cee dellu gannaaw waxtu wu nekk mu di cee def la man maire bi danay yónnee carburant rek lu bari ci carburant boo xam ne daf ñu koy jox jàppalee nu ko ci liggéey bi jàppalee nu ko ci transporté di ko indi ak li ñuy def yépp dañ koy jàppalee lu bari waaye lu mu bari bari bu xoolee lam defoon daaw bu ko mënee dollee tam na ko dolliwaat bu baax ndax loolu suñ dimbal la bu baax te lu am solo la ci la ñuy def wàllu oto yi nga xam ne ñooy jóge ci ñoom itam oto lu mu ca man mu def ko ca loolu dana doon suñ dimbal bu baax a baax fa tabaarakallaahu kon maire yi ñu ngi leen di sant bu baax ngeen santal nu maire bi santal nu ñëpp ne ko ñu ngi leen di xaar ci jàpp jàppale li ñu a jàppale ci ci bis bi beneen ba ca des mooy set ñoom itam soxla nañ leen ci bis bi nga xam ne mooy jiitu màggal gi ñëw ndax dañuy bëgg fépp set ak wàll yépp set SONACED damay wax ne service la bu am njëriñ amal njëriñ dëkk yi surtout fu mel ne tuubaa ndax mbedd moo jaar danga fekk ñu nekk fa di dindi suuf sa di def lañ war a def loolu kon waa SONACED ñoom itam nañ ci boole Daaru Karim ba fu mu war a àgg mu àgg fa nu mu war a baaxee mu war a sete def ko ci bis surtout ci bis bi ñuy def set setal bi nag kooku moom ñu ngi ci sàkku seen taxawaay bu baax a baax di leen gërëm nag ci seen taxawaay yi jiitu woon yépp itam beneen bi ci des moom mooy ñu xam ne yoon mooy tax nga mën a dem fi nga bëgg a dem yoon wi sëñ Abdou Saax wax na leen ko yoon na ñu ngi la ciy sant bu baax ndax jot na la ci ay yoon wax ci ak yow ba ngeen jàpp ci ba mi ngi mi ngi mi ngi gën a yomb loolu man daf ma jaaxal ndax bu fekkee suuf dafa am fi béréb te béréb ba mu am du domaine domaine domaine national rek la kon dafay mel ci misaal ne bu état waxee ne nañ fi tibb lii fii ñu di ko fa jëlee di ko indi ci ci biir ci dëkk bi rek war naa mën a jàpp ni waaye kenn ku ne bëgg caa aj nag loo xam ne day ëpp la mu àttan loolu loolu matewu ko ndax am na am na am na communes yu koy def waaye am na communes yu ko dul def waaye tax seen taxawaay yow ak ak ak Abdou Rassakh lay leeral tax na sunu xel dal ci bu baax a baax ndax lu ci bari soppiku na kon loolu mu gën a jëm kanam moom itam bu baax a baax fa tabaarakallaahu beneen bi ci des itam mooy ñu xam ne tuubaa day dëkk boo xam ne ñëpp fa daje ña fa ami kër ñëpp ci daru Karim am nañ ko ci biir dëkk bi yëpp bu màggal ñëwee ñëpp dañuy ñibbisiwaat foofu nekk fa kon lotissement bi mu gën a yaatu ba àgg foo xam ne fii dana da lay suuf sa lu ñu fa am lépp ñu la tusi ko ba nga xam ne ku soxla kër danga nga ko mën a am te ku am kër itam da ko mën a def la ca war ñu sàkku ci ñëpp ñu gën cee góor góorlu te ñi ñu fa jox ay parcelles yëpp ñu ñëw dëkk ko te defar ko te xam ne loolu la ñuy xaar ci ñoom loolu moom itam ñu ngi leen ci sant leen ci état mën a jàppalee nag mu jàppalee leen ko defal leen ko muy muy muy courant bi di ndox mi di lépp fa tabarakallah kooku ñu ngi leen ci sant bu baax a baax beneen bi ci des nag mooy njaboot Seex sàmba gépp ñoo teewe si bis bii tey ñoom ak ñi ngi fi ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ne ñi ngi fi nekk ñii nekk nañ ci commune ñii nekk nañ ci service yi yu bari bari yuy dox foofu lu ñuy def lu ne xam nañu ko loolu kon ñoom itam ñu duñ leen mën a ñàkk sant duñ leen mën a ñàkk gërëm ci taxawaay yooyu nga xam ne moom lañuy taxaw surtout nga xam ne mooy secretaire général wu euh, waaw Sarr Pape Sarr ñu lay gërëm bu baax a baax ci taxawaay ngeen waxaat maire mu gën ñoo jàppale gënoo taxaw bu baax <coughs> wàllu ndox mi soit fàtte woon naa bassin yi bassin yi ñuy jël yu baas yi nga xam ne mooy tege ci kii yi buñ ko mënee am tasaare ko ci dëkk bi dina tax mu gën a doon ndimbal ndax branchement yi demut fi ñëpp waaye bu ñu amee baas yooyu teg ko muy ndox nga xam ne lu ñu soxla dañ ci ko ci mën a jëfandikoo loolu dana doon dimbalu bés bi bu baax a baax su gannaaw bu loolu wee nag sëriñ bi moom mi ngi leen di sant mi ngi sant président ci boppam ak taxawaayam ak doxinam yëpp ci ci ci ci Daaru Karim waaye mi ngi sant itam ñi nga xam ne seen loxo jógul ci Daaru Karim xalif général de Mouride ñu ngi koy sant di ko gërëm. ndax mooy moom lañ loxoom njëkk dem ci daaru karim bi ñuy sañ ci daaru karim te ba léegi jógewu jëlewu ci loolu ndimbalam kon ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla wéral ko yàlla kattanal ko yàlla tawfiixal ko ba li mu yéenee liggéeyal sa sëriñ Touba mu liggéey ko ba mu mat sëkk bañ am benn gàllankoor yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def may gërëm itam nag commité comité organisation bi yor liggéeyu màggal gi ndax noppal nañ ñu lool ci liggéey bi lenn lu ca ne ñu ngi koy dajee niñ ko war a daje di ca wax lañ ca war a wax di ca taxaw taxawaay yañ ca war a taxaw ku ñu war a yëgal yëgal nañ la ku ñu war a ku ñu war war a xam itam xam nga kon loolu ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant bu baax a baax yal na yàlla fay leen ci darajay lislaam yeneen organisme yi nga xam ne ñoo yi ngeen xam ne ñoo nekk ci màggal gi itam di comité culturel bi mën nañ leen ñàkk sant ndax ni ñu koy tuddee kilifa yi ren ñu tudde ko sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne mooy way juru sëriñ Muntaxa basiir kon moom it loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di ci gërëm bu baax di xamal ne loolu mooy gën a jàppale bokk gi mooy mooy gën a dëral ndax ku xamutoon boobu teewee bis boobu da nga xam ci sëriñ Basiiru loo ci xamutoon kon loolu moom it duñ mën ñàkk gërëm leen ci duñ mën ñàkk sant leen ci ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax a baax leneen li ci des itam mooy ñu xam ne ah, état mënul lépp la mu mën dana ko def waaye la nga xam ne mënu ko itam kenn ku ne da ciy jàpp ñoom comité d'organisation bi xam nañu loolu ba lu ñuy def lu ne seen loxo da ciy jàpp ñu doog ñu doogoo sàkku ndimbal lu jot si foofu yoon woow nga xam ne ñu ngi koy def moom it ñu fexe ba mu gën a gaaw ba nga xam ne dana dal xelu ña fa dëkk ñëpp kilifa ya fa nekk yëpp ndax loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg ndax daaru karim penc moom mooy penc mu mag mi waaye am na meneen penc itam moo xam ne mu nekk mu yeneen penc yu nekkaat ci béréb bi du benn du mel sax waaye pencu kër sëñ Modou Faty Khary programme nañ ko moom itam niñ ko programme ci penc mu mag mi loolu moom ci la ci la bokk waaye loolu bu amee ba noppi ci njaxaay dafa am mook daaru karim benn lañu sëriñ Moustapha moom sëñ sëñ Massamba dama foofa am na am na fa jumaa ju mag ak penc mu mag moo xam ne moom it bari na yu fa manqué te matagul muy ndoxit manqué na fa kon moom it war nañ ko def am na fa penc moo xam ne pencu sëriñ Mahmoudan la moom it def nañ fa jumaa ju mag di liggéey soxla nañu mu am ndox lam ci war a am am courant nam ko war a amee daaw te moom sanc na dëkk nañ dëkk yëpp ba nga kër yëpp ba nga xam ne moom ay nit a fa nekk yu bari waaye teewul ñu am manqué manqué kon léegi taxawaay yooyu maire danañ la danañ la wax nga gën ci nga gën a wax maire bi mu jàpp ci ba li ah comment waaw maire danañu wax nga nga wax maire bi mu gën cee jàpp ba nga xam ne lépp loo xam ne war na ko fa mën a def ci ay jàppandal ba ndox ma doy fa courant ba ba doy fa lu mu ca man mu def ko ci la mu manut itam ñu jàppale ci ñu jàppale ko ci ba mu mën a mat loolu mooy suñ bëgg-bëgg mooy taxawaayu sëriñ bi kon sëriñ bi mu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax gouverneur di sant chef de service yi seen taxawaay ndax bu ñu leen woo kenn ku ne da nga ñëw te la nga mën danga ko da nga ko wax te buñ noo xoolee mu noppeet da nga def la nga wax kon loolu mënuñ leen cee ñàkk a gërëm mënuñ leen cee ñàkk ñàkk a sant service d'ordre bi moom itam ñu ngi leen di sant bu baax am na lu sëñ Rasaax wax léegi loo xam ne lu lu gën a yitteel la ndax benn poste contrôle bu nekk foofu daaneki balaa màggal gee jeex ay kilifa yu ne dinañ depp jóge daaru Karim ñëw ci moom ndax mu téye ay nit ci dañoo mélange bagage ak dañoo teg bagage ci kaw ak dañoo def li te fu ñu yóbbu ak màggal il faut nag ñu teg dara ci kaw moom lu mën a ñàgg loolu moom itam ñu dimbalenu ci ba nga xam ne jafe-jafe yooyu danañ lu ko teggil ndax nekk ci nit ñi war a jëflanteeg ñoom wara a niyoonteeg ñoom war a jàmmasanteeg ñoom ñu ñu jëlee la fa ne la kaay dem ñëwal wax ci kii boo ci waxut oto yi duñ mën a tey dem dañuy def li lu ay jafe la loolu moom it ñu dimbuleenu ba nga xam ne lu ci bari dana saafarawu loolu mooy yi nga xam ne mooy yitte yi nga xam ne moo du gën a yitteel ñuy sant bu baax mboolem koo xam ne ab sa loxo jàpp na ci bis bi di ñi ko moomel seen bopp te te organisation bi nekk seen loxo ak ñi ko moomal seen bopp te culture bi nekk seen loxo ak ñi ko moomal seen bopp te te ñoom itam yàlla dogal seen taxawaay di benn ak taxawaayu ñooñu kon ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla na yàlla dool leen sutura dafa leen tawfiix ak taysiir jàppandal mbir yi ba mu àgg ni ñu ko bëggee yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu jéem a te jotaay bi rek di yeeselaat suñu nuyu ak suñu ziar si xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàgg fi lool yàggal ko fi lool tam ànd ak wér di yóbbante également ziar si xalifu sëñ Massamba Mbacké muy sëñ Maam Mor Anta Sali Mbacké ak njabootu sëñ Massamba gi yëpp di jël nuyoo boog ziar aussi di ko teg ci loxo sëñ Cheikh Mbacke mu jottaluñ ko délégation ba leen fi gunge di wax rek ñi ngi ci jeex euh, jeexitalu CRD bi pour waajal euh, màggal googu te bés bi nekk ci liñ jàppagum incha allah pour le 9 mars pour su koy defee de service yi mun koo xamee noonu. Euh, gis nañ ne lépp loo xam ne peut-être war nañ ci état war na leen ci mën a gunge foo commité comité d'organisation bi euh, àdduna ci euh, ñu mun cee tënk rek quelques quelques points ndax foo naa yi ci bari sëñ bi waxaat na ko te yaakaar naa ne chef de service yi jël nañ note bu baax waaye dafa am ñett rek yoo xam ne mun nañ cee àddu muy ci wàllu wër-gi-yaram ndox ak kaaraange Euh, ci wàllu ndox wax nañ ko léegi li nga xam ne moom lañ ci àddu pour euh, renforcer euh, li nga xam ne mooy approvisionnement bi mooy juróomi camion citerne ak fukki bâche à loolu foog naa comme ni ñu ko waxee rek dinañ ko jottali suñ paree ci réunion bi léegi incha allah DG Ofor su ko defee ak régional bi hydraulique dinañ ko mën a suivre ndax dèjà rek biir Touba fi nekk ci ay camion citerne ci loolu xaw na ko xaw lim bi xaw na ko mote donc su ko defee ñu xool incha allah rabbi nan lañ koy mën a mettre à la disposition du comité d' organisation euh, dëgg la am nañ jafe-jafe ndox mais fan naa ñu ngi ci liggéey ba incha allah suba rek waxoon nañ sous-préfet bu Ndaam am na ndaje boo xam ne woote na ko euh, pour ñu xool ci yi nga xam ne mooy ndox mi nga xam ne am na ci jafe-jafe biir Touba. Mm. te am nañ yaakaar DG Ofor ci boppam dina ñëw fekke ko dina ñëw aussi am liggéey bi ñu ci def am nañ ci yaakaar ci kanam mun naa am yenn jafe-jafe yëpp dina féete féete ginnaaw mais du tere. incha allah dinañ ko dàggan te nañ ko topp ba suñu borom def ci li nga xam ne mooy li ci wàllu également wër gi yaram donc loolu foo naa ne waa kër yi yàgg nañ di ci liggéey muy euh, poste médico avancé yi nga xam ne war nañ mën a samp ci euh, biir Daaru Karim yokk également médicaments yi ndax foo naa ne xaw na cee jib ndax amoon na waaye comme que lim bi day yokku ñu gën a renforcer garab yi nga xam ne moom la ñu ci war a toftal ak également positionner éventuellement des ambulances au niveau du au niveau di site loolu également dina tax ñu mën a fagaru moo gën a moo gën a wóor ci wàllu maintenant assainissement loolu fen dañuy boole ñaari rek muy wàllu mairie euh, am na ci loo xam ne dina ci dugal loxoom ndax euh, yore na ay camion vinage waaye du tere ONAS lañ ci tamit dina ci indi sa contribution euh, ren ñu toftal ci ay toilettes mobiles yi nga xam ne moom ngeen addu incha allah dinañ ko jébbal waa ONAS topp ko aussi ba yéen yi nga xam ne moom ngeen ci am suñu borom euh, mottali ko également euh, wàllu courant wax ngeen ko muy ci wàllu éclairage public loolu foo naa ne Sénélec ak mairie également ñoo ci ànd liggéey ndax am na ci pàcc boo xam ne éclairage public suñ ko tuddee compétence su parfois commune la mais nag ci wàllu renforcement Sénélec war na ci mën a dugal loxoom ensuite euh, mise hors délestage ñu fexe ba courant bi bañ a lu jiitu ñaari fan avant màggal gi ndax am na conférence boo xam ne da cay am ak également même après après la màggal te loolu euh, heureusement également wax nañ ko ñaanuñ ko heure bu amee peut-être groupe électrogène mën a jël relais bi su ko defee li nga xam ne moom mooy li euh, ci ne courant bi mën a gën a gën a yemb leneen également muy une nouvelle doléance muy extension réseau bi ndax dëkk dëkk yi nekk tubaab foofu naa ni ñuy màggee xam nañ ko ñu fexe dans la mesure du possible a def extension réseau bi pour mën a ña fa nekkit mën a màggal ci condition yu mucc ayib donc loolu également moom lañu tënk li koy tënk rek li koy tëj mooy wàllu kaaraange ndax yaakaar naa fépp foo xam ne ay doomu aadama dañ fay daje euh, il faut que kaaraange bi également ñu gën ko renforcer heureusement commandant compagnie wax na ko donc lépp luy jumtukaay muy sapeur pompier police ak gendarmerie ku nekk di nga ci am taxawaay boo xamante ne war nga ko ci def ba incha allah rabi suñu borom may ñu jàmm ci euh, wàllu màggal boobu. leneen yi nag mooy soxla yi fi jib dégg nañ ko surtout renforcement réseau bi amélioré ko du moins au niveau de Daaru Karim loolu foo naa ne actuellement ni sax am na liggéey boo xam ne ñu ngi ko ciy def yemul rek ci euh, Daaru Karim parce que liggéey bi ñuy def dañuy dañoo sas ñu xool bërëb yi nga xamante ne réseau bi doxul noonu donc yaakaar naa ne préfet ñu ngi ciy liggéey et incha suñ si paree recencé dinañ ko jébbal kilifa yi ndax xam naa li ñu si jublu mooy jéem koo saafara ni mu gën a gaawee donc yaakaar naa ne préfet mu ngi liggéey su boobaa également au même de Daaru Karim donc li ñu bëgg rek mooy ci région bi ñu fexe ba réseau téléphonique bi mu ci ayib donc loolu foo naa liggéey bu ñu sas la te incha allah du yàgg xam naa préfet dinañu jébbal li nga xam ne moom lañ koy def ànd kook maire yi su ko defee ñu jébbal ko kilifa yi nga xam ñoo yore loolu donc yaakaar naa ne loolu liggéey la bu ñu sumb fan yi yàggul te incha allah rabbi dinañ ko topp euh, noonu incha allah li des nag Sonatel teewuñu mais jàppale ne mbëbët yi dinañ ko yëg te incha allah dina leen ko yónnee donc di euh, rafet lu baax nag nu liggéey bi doxee di leen ñaanal également suñu ñaan ah ñu sàkku tamit ñaan ci réew mi suñu borom def si jàmm ak dal ba li nga xam ne moom lañ mëbët ñu mun ko def également ak xel mu dal donc yaa am nañ ci yaakaar bu baax tamit mais dañ koy daaganaat rek ci kilifa diine yi ñu ñaan réew mi ndax foo naa ne ñaanal réew mi également mooy ñaanal suñu bopp donc loolu foo moom la ñuy sàkku rek ba li nga xam ne mooy ci réew mi dal bi ñuy seetlu nii suñu mbërëm gën koo téye gën koo yokk ba su ko defee incha allah lépp luy xew-xew diina wala beneen xew-xew ñu mun koo def ak xel mu dal donc loolu également ñu ngi koy sàkku ci jotaay bi yëpp incha allah rabbi donc yaakaar naa daal loolu ñu tënkoon li ci des foo naa ne préfet bu Mbacké dina ko ànd ak sous préfet bu Ndam muy suivre également engagement yi nga xam ne jël nañ ko fi ah muy yéene nag te xam naa ne service aussi am nañ ci Pastef ah, borom bi nag mooy yi waaye dinañ ko ànd ak yéen di ko topp li ñuy ñaan rek comité d'organisation bi ndax ah, liggéey doomu aadama matul fu mu amee rëq-rëq wala jafe-jafe rek su ko préfet Mbàkke yëgee mel na ni yëg nañ ko su ko sous préfet bu ndaam yëgee mel na ni préfet yëg na ko su ko defee su dee loo xam ne mun nañ koo saafara fii tamit dinañ ci góorgóorlu su dee nag loo xam ne day egg ci kaw it mun koo teel a jottali kilifa yi jëm ko jubanti loolu la ñuy ñaan comité d'organisation bi ñu lëkkaloog autorités yi nga xam ne ñoo nekk la base ci lépp loo xam ne taxawaay la wala ñu jëloon ko fii nii te mu am sooxe wala mu am également nañ ko defee nekku ni gën nañ ko teel a yëg su ko defee lu ñu mën a jubanti ñu koo teel a jubanti incha loolu la ñuy ñaan rek comité d'organisation bi te mu nekk tamit euh, mu bañ a nekk benn nit rek xam nga parfois kenn ki mun na xat mais au moins su dee am na ñett ba ñeent yoo xam ne préfet xam na ko su ko defee su boobaa su wootee kii su jàppul dina mun a woo keneen loolu également soo leen delloo ñi ngi ñaan loolu également ngeen jox ko préfet bu Mbacké su ko defee dina ko mën a partage ak de service yi nga xam ne ñoo ci liggéey su ko defee incha allah dina jokkoo bi dina gën a gën yomb su ko defee loolu la ñuy ñaan rek comité d'organisation di ñaan suñu borom yóbbuñ seeg jàmm ci bës bi ba lépp luñ ci ñaan suñu borom nangul ñu ko te defoo ko ci réew incha allah donc loolu daal lañ bëggoon tënk waa en français rapidement rek donc nous sommes euh, nous sommes au terme de la réunion du CRD donc qui est à la préparation du Magal dédié à Serigne Massamba Mbacké et tout d'abord nous voudrons euh, transmettre nos salutations les plus différentes au Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et prier que pour le Tout-Puissant lui donne une longue vie à une santé de fer. Mais également, les premières premières sont formulées à l'endroit de Sérignement Mbake, le calife de Sérignement Mbake. Et ces prières, nous, nous, également, nous transmettons toutes nos salutations à la délégation qui nous est venue de Darou Karim. Et nous le mettons également entre les mains bénies de Seigneur la tenue de cette rencontre qui nous a permis de faire le tour euh, des secteurs qui entrent dans le cadre de l'organisation de cet événement religieux. Et d'une manière euh, synthétique, il y a certains secteurs clés donc, où nous avons beaucoup insisté, notamment dans le secteur de l'eau, où nous attendons le renforcement du dispositif d'approvisionnement en eau potable avec 5 camions citernes et 10 bâches à eau. Et ce dispositif devrait être mis en place 6 jours avant le Magal. Parce qu'entre-temps, avant le Magal, il y a la conférence religieuse qui doit être organisée deux jours avant l'événement. Et au d de, du secteur de l'eau, dans le cadre Euh, il, faut, sera question de vider les fonds sceptiques de certaines concessions. Et pour cela, nous demandons à la commune de Touba Mosquée d'apporter sa contribution et que l'ONAS également pourra mettre à la disposition donc, euh, du comité d'organisation deux camions de vidange pendant quatre jours, mais également des toilettes mobiles donc, qui pourront être utilisées à toutes, euh, qui pourront également utilisées. Euh, dans le cadre maintenant de la santé, un dispositif médical sera installé avec des postes avancés qui seront également dotés suffisamment de médicaments. Mais surtout, des ambulances vont être positionnées pour parer à toute éventualité. Et pour accompagner ce dispositif médical, euh, nous demandons à la brigade régionale d'hygiène de procéder à des opérations de désinfection dans les différentes concessions. Et là, nous saluons l'engagement du, maire de la commune de Touba Mosquée qui s'est engagé à appuyer donc euh, la brigade régionale d'hygiène en termes de carburant pour faciliter ces, ces opérations. Et qui dit santé également dit un cadre de vie attrayant. Et là, la Sonagette va apporter sa contribution à l'occasion de la journée de nettoiement qui sera organisée le 1er mars 2000, 2024 en relation avec le comité d'organisation et les talibés qui seront donc utilisés. Il reviendra à la Sonagette et à la commune de mettre à la disposition donc de ces, de ces personnes-là, donc tout ce qui est moins logistique, mais également les ressources humaines disponibles pour que quand même puisse euh, rendre attrayant donc la ville de, de Darou Karim. Donc au-delà de ça maintenant, il y aura la couverture sécuritaire, donc les différentes forces de défense et de sécurité. la gendarmerie, la police et ainsi que les sapeurs-pompiers, chacun dans les domaines qui est donc le domaine de compétence, prendront toutes les dispositions pour une bonne donc, couverture sécuritaire de cet événement religieux. Et enfin, nous, nous allons profiter de cette, de cette réunion du CRD pour solliciter également des prières à l'endroit des notabilités religieuses pour que le Tout-Puissant, encore une fois, continue de veiller sur notre pays et qu'on ait également donc un Sénégal donc dans la paix, mais également un Sénégal stable pour qu'on puisse dérouler quand même dans les meilleures conditions tous les événements religieux qui vont se dresser devant nous. sur ce, nous devons la science. Merci. léegi sëñ bi mën nga def ñaan rek après Mbacke bari